dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox Sonko la solution atum dafa nekk virage bu am solo boo xam ne Sénégal waru ko dal di raté lan moo waral sénégalais yi am fenn fu ñu teg usman Sonko lan moo waral tey jëlee dayo bi mu am ci Sénégal ak ci Afrique mu dal di fay yegg ñetti mbir ñoo ko waral muy discours parcours ak combat boo xam ni da mën mëni contre le système discours mooy kàddu bi nga xam ni usman Sonko yëkkate na ko jëmale ko ci sénégalais yi xamal leen lu yees lu ñeel wàllum politique waaye itam yee leen de telle sorte que sénégalais yi nga xam ne yëpp dañoo démissionné woon ci wàllum politique dikkat di ci intéressé wu ñoom ñëpp di ci dugal seen grande de sel. parcours bi nag mooy la nga xam ni moo gën a convaincre sénégalais yi mu di fukki at ak juróom yi nga xam ni def na ko ca biir impôt et domaine kenn amul dërëm buñ ko toppee te pourtant dafa nekkoon inspecteur principal kon lekk xaalisu ger lu ko doon yomb la waaye ñaar yooyu weesu daf koo tënk ci benn mbir muy xeex système bi nga xam ni moo nekk ci réewum Sénégal ñu mën koo tënk ci toog muy dox maanaam dafa am nit ñoo xam ni depuis bi Sénégal amee indépendance am ba tey ñoom ñooy buum di buum mi yar kopparu réew mi di ci def la leen neex di ko awalante saa su nekk rek seeni mbir di baax fekk jamono jooju sénégalais yi ñu ngi dund souffrance boo xam ni xamuñu fu ñu koy jooyee. naka noonu ci la Ousmane koo ñëw ba muy dikk ca saa saasa indaale benn livre bu mu dippee solution maanaam saafara si mën a tax Sénégal daal di génn ci jafe yi nga xam ni depuis indépendance ba tey ci la daal di nekk. nekk ba tax mu ne faw ñu xeex lép loo xam ne dafa ñeel mbiri France Afrique ndax ñoom ñoo ñee bokk nañ ci blocage bi tax Sénégal du mën a avancer. luwaat itam ci li nga xam ne mooy suñu bopp ñun dem bay ji ci tool yi moo waral VAP yi moom Ousmane Sonko mu dal di woon koy initier ba ay ndaw yu bëree bëri dal di woon ciy dem. ci loolu Ousmane Sonko ne faw ñuy xeex intérêt wu sénégalais yi ak yeneen réew yi fiy ñëw ñuy xaatim ak ñoom ay contrat dañ cee war di jiital bés la sénégalais yi di ci daal di gis seen bopp waaye nag la nga xam ne usman Sonko wan na ko sénégalais yi ba tax ñu daal di koy topp muy discours beeg parcours bi ak li muy xeex ci lu ñeel wàllum système bi dafa am ay jikko yum ko booleel muy jom fulla fayda waaye boole ci fit ak ngor ci ni nga xam ne noonu lay jëflanteeg ma Macky sàll ak ñi mu bokkal li ñeel wàllum opposition mu ñëw nag am déggoo bu yaatoo yaatu ak ndaw yi Sénégal foo tourné rek usman Sonko dañ lay daal di wax xalaat bi nga xam ni ndaw yooyu am nañu ko ndaw yi jël gaal yi di dugg ci géej gi wutali yoonu tugal am désespoir maanaam yaakaar bu tas ci seen réew moo ko waral waaye nag yaakaar googu judduwaat na à cause de Ousmane Sonko moo waral moom mu ne leen na ngeen toog fii ci réewum Sénégal ngir daal di ànd booloo xeex ba nga xam ni atum 2024 day mën a participer ba ñu dénk ko bopp nguuru Sénégal mu yore réew mi ci dëgg daal di redistribuer waate richesse yi sénégalais bu ci nekk di ci daal di gis sa bopp te lu ni mel nag du yem sax Sénégal képp ñëpp ndax ku xam Ousmane Sonko gis ni muy doxalee xam ne leader la boo xam ni ci àdduna wërngal képp mën na fay am présence bu am solo mën nañ ne sax dimension wu Nelson Mandela moom Ousmane Sonko mën na faa dal di yegg. waaye nag kenn weddiwul ne coow bari na lool ci ay mbiram moom Ousmane Sonko waaye lenn moom moo ko waral ñàkk nangu li nga xam ni yàlla def na ko ci moom am réew day toll foo xam ne ñëpp dañuy riir utali kenn ca ñoom te jamono ji ci Ousmane Sonko la loolee daal di nekk réew mi le changement dafay a te képp kuy sénégalais war nga cee bay sawaar bëri woon na comme niñ ko waxee ay sénégalais yoo xam ne dañoo découragé woon complètement ci lépp loo xam ne daa ñeel politique wu Sénégal ak ni muy doxee tey nag bu ñu demee ba dikkat ci dugg ci bu baax nekk ci à fond ba ci waxtaan ak yeneen i sénégalais dafa fekk ne daa am ku ko incarné ci ñooma boole ci nag fulla ak fayda jom ak fit gu mat sëkk waral tey jëlee ñu daal di yegg ci niveau bi ñu toll waaye la nga xam ne itam faw faaw ñu bàyyi ci xel mooy li may Ousmane Sonko dayo bi mu toll tey jilee constance bokk na ci maanaam kàddu démbam mooy kàddu tayam taxawaayu démbam itam mooy taxawaayu tayam fa mu tegoon tànkam ci wàllum ngëm-ngëm teggiwu ko benn yoon loolee moo waral ndawi Sénégal am ngëm-ngëm ci moom ndax dañoo jàpp ne lépp lu mu mës a wax rek dal dina koy def élection présidentielle yu atum 2024 ñëpp xam nañu ne par rapport ak sondage yi jot a génn bu ci bokkee moom Ousmane Sonko mën na koo dal Diour kon nag nañ ko bàyyi mu daal di ci participer ndax sénégalais yi am na yaakaar bu ñu am ci moom am na ñu ko teg am na itam mbooloo mu takkute dogu fas yéene ànd ak moom ba dugal ko ci biir palais de la république waaye nag benn jafe-jafe dong moo taxaw jamono ji muy ndax dina bokk am déet ndax ñaari daan yu tukkee ci wàllum yoon daal di tegu ci kawam moom nag mu joxoñ ci baaraamu tuuma ki ñu dénk suñu réew actuellement muy le président Macky Sall wànnent di mujjee ak i gëtam ndawi Sénégal ax nag kenn weranteetul ne nekk ci xolu jeunesse bi lépp dina leer le 25 février 2024 bés bi war a tànn ki a wutu président Macky Sall un petit résumé en français Ousmane Sonko la solution la plupart des Sénégalais ont adopté la vision de ce leader basée sur trois points d'abord son discours Ousmane Sonko a apporté un changement radical par rapport au discours que tenaient les politiciens au Sénégal il a commencé même par servir un livre livre intitulé Solutions qui montre la voie du développement au Sénégal. Ensuite vient son parcours au niveau des impôts et domaines où il a fait 15 ans, zéro faute. Il n'a jamais été épinglé pour une somme quelconque. Enfin, à travers son discours, il a décortiqué ce qu'il appelle le système des individus formant un groupuscule qui se partage les biens des Sénégalais sans que ces derniers ne s'en rendent compte. Ce sont eux qui ont les privilèges et les Sénégalais continuent de travailler dur pendant que ces derniers remplissent leurs comptes bancaires avec l'argent des contribuables. À travers son discours, Ousmane Sonko a montré aux Sénégalais qu'il faut faire face à la France-Afrique qui continue le biais du néocolonialisme à les richesses du Sénégal et des Africains en général. À travers son discours, son Sonko invite les Sénégalais à retourner dans les champs car étant le seul moyen pour garantir l'autosuffisance alimentaire mais surtout à sécurité tout en prônant le consommer local. Par consommer local, Ousmane Sonko à travers son discours nous ramène aussi au panafricanisme. Croire en nous les Africains car nous avons les deux choses qui permettent à un pays ou un continent ressources humaines. Nous avons de l'or, du pétrole, du gaz, phosphate et d'autres richesses sous nos terres. Et nous avons aussi des savants qui sont en Afrique et surtout une jeunesse active, prête à travailler mais qui n'a pas, et dirigeants pouvant proposer les politiques adéquates pour pouvoir exploiter ces richesses dont disposent les Africains. Et toutes ces qualités dont dispose Ousmane Sonko sont coiffées par le sens de la responsabilité, le courage, la persévérance, la constance et la patience, mais surtout la yote. Voici donc les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko occupe actuellement les cœurs de la plupart des Sénégalais car ces derniers ont soif de changement, souffrant tous les jours et voyant leur fils se sacrifier dans la Méditerranée, le désert du Sahara pour des lendemains meilleurs. Raison pour laquelle Ousmane Sonko se dit prêt à défier tout obstacle pouvant l'empêcher de participer à l'élection présidentielle de 2024. Il a une vision au-delà de diriger le Sénégal mais l'Afrique en général pour que le berceau de l'humanité puisse voir son fils grandir et prendre soin de lui-même au lieu d'être berné par l'Occident qui ne fait que l'endormir, piller ses richesses et lui faire croire qu'il est le seul capable de l'aider à sortir de ses rêves qu'il n'arrive pas à réaliser. Un homme comme Ousmane Sonko qui peut bel et bien un jour avoir la dimension de Nelson Mandela serait peut-être le messie tant attendu après les déceptions terminé leur travail comme Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Mamadou Dia, Patrice Lumumba et tous les grands résistants africains qui ont farouchement lutté pour que l'Afrique puisse retrouver sa splendeur. AGT News. jàmm ci AGT News chaîne bi leen di a